ayca asalaamaaleykum amee internet yu seetaan chaîne bi di euh, Dakar H24 ak à travers euh, Yaga TV tey nag ñu ñëwaat fii ci Guédiawaye ñu ñëwaat fii seet si waat fii Thierno ngir ama ak moom waxtaan ci li ñu daan waxtaanee bis bu ne Thierno ginnaaw bi ñu la nuyoo. ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internet bi ak Sénégalais yi ñu dugg ci waxtaan bi incha allah. waaw mbokk salaamaaleykum yéen waa bi. yéen waa Sénégal di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mm-hmm. ci ginnaaw élection yi jàll nii di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen mm-hmm. ci mel ne Yàgg TV ak euh, Dakar H24 di la sant bu baax di la gërëm di la jox seen wàccuwaay yi ñëpp jërëjëf jërëjëf sëriñ bi euh, tey nag li ñu fi indi li ñu fi daan indi ndax tey internet yi surtout waa diaspora ñoñu top ndax xam nga ni tay mom férié la gaay sa dara daanaka ñu ci si sëriñ bi ñu top ñu demal nga sétalat ñu sëriñ bi mm-hmm. waxtanaat ak ñun ci limu daan waxtaanal bés bu ne muy wàllum seet bobu ñuy wax ram bu xaw ma ram ram sëriñ bi loolu daal lañu gaay topé deug la tay lañ bëgg nga bu gën ñu ci léral ram bi mm-hmm. wa ram bi mom dina la dama ko jang ba man ko mm-hmm. te képp ko xamne dama ko ci sétal ci kàttanu suñu borom lepp lu nekkon ci yow inshallah rabbi dina la ko wax bo toogee ma wax la sa bokk waaw ah, loolu la gars yi gis. moo tax ñu ne ñu wax ñu secret bi secret bi nag. waaw tey jii ramdi damay seet ci ramdi damay seet ci kurus nee naa waaw damay seet ci tamit ci ci ci beneen façon ramdi bii. damay seet ci tamit beneen façon ramdi waaye bii nii moom. Hmm. képp koo xam ne tey ñëw na ci man. wala nga woo ma ak foo mun di nekk ci àdduna bi ba ma wooyee ci kàttan suñu borom ma wax la sax fi nga toogee. ah. incha allah rabi ni nga toogee sax mën naa la ko wax. waaw ndax dafa am lu fi xewoon muy élection présidentielle. Hmm, hmm. nga ne xool naa ko ci rand bi. waaw diw mooy président te premier tour lay lay dëgg la waaw loolu dëgg la boobu moom ci rand bi laa ko seetee. beneen bi damaa tëdd ba def ay xalwaat. Hmm. ñu wan ko guddi nee naa la waroon na ma ko guddi ma gis Ousmane nekk ci kaw Amadou Ba nekk ci suuf te loolu tamit maqaama la nee naa foofu laa ko tegoon rek ak seet ko boo xam tamit lu leer laa toog ma wax loolu looloo tax mu génn wax ko moo tax ba nga ma waxee vaar mu ne la man ragaluma vaar. man damay def dama ko jang salum ba man ko maîtriser ko motax bu may genn di wax rek duma waxe manam bakkan damay waxe ngir xam-xam lolou nga ñu waxon wa lolou la leen waxoon te yaakaar lolou am nga ñëwaat fi ngeen ma maa vaar am na la vaar du am may na serigne bi gaay da dañuy yóbbu vaar nga ne kenn mo yóbbu man duma dem vaar man Thierno ah waaw man duma dem vaar ah, serigne ram bi mom mom moom moom doy na waar de ba gis na ramd bii nii du caaxaan pour ma sét ci du taxan manam du do ngay juk rek sét du ma juk ci rek sét ci du du ma jug rek seeti. foog mu doon mbir mu. mu mu xaw a borom xaw a jaaxle lool ci ay boppam. ne wala mu ñëw si man na ma seetlu naa ba sonn waaye fu ma seetloo kat du ma gis nangam nangam boobaa bu ma la ci seetalee si kàttu suñu borom lépp looy def dinaa la foog incha allah. ci rand bi ci rand bi. ah sëriñ bi ah. sëriñ yi yóbbu vaar bëri de. waaw ci ci élection présidentielle waaw yóbbu naa ñu bari vaar man nii. yow yóbbu ñu bëri vaar. ñu bëri yóbbu naa leen vaar. jeex na man dama na Mm-hmm. xat du damm bal du tàkk. ne ma premier tour lay daal premier tour la koy gagné. li may def dama koo man jàng ko ba maîtriser ko man waxee ma ngir bakkan ñooñu dañu waxee ngir bakkan rek ñooñu ñeneen jaa ngi jaa xam-xam. ah loolu nga ñu waxoon. waaw képp koo xam ne tey ñëw na ci man. ci mm-hmm. kàttan suñu borom ma wax la sa bopp. waaye ba tey sëriñ bi loolu moom wax dëgg yàlla yéem nañu lool ñu ñëw ci kurus gi tamit ndax gars yi dañ ñu ni jooni jooni bee gën a doy waar mm-hmm. nee nañ ñu kurus gi moom mm-hmm. moom ngay li si xaaro mm-hmm. moom ngay li xaare di ko di ko di ko di ko di ko di ko fanaanoo dëgg la dëgg la gars yi kurus gi dëgg la dëgg la loolu course gi gars yi la waaw course gi nee naa la course gi tey jii. Uh-huh. bu ma ci defee lu may def ba pare. waaw ba ñaan samay soxla ci kàttu suñu borom. Uh-huh. lépp lu nekk ci yow day mel ne yàlla damaa tijji say kiiraay. Mm-hmm. lépp lu nekk ci yow rek incha allahu rabbi. Mm-hmm. ci kàttu suñu borom dinaa la ko wax incha allahu rabbi ci kàttu suñu borom. course gi moom moom moom mooy mooy mooy mooy mooy listixaar bi wala. waaw course gi waaw mooy listixaar bi. mooy listixaar bi mooy listixaar bi mooy listixaar bi. Ah. waaw course gi. mooy listixaar képp koo xam ne seetal naa ko ci ci kàttu suñu borom lépp lu nekk ci yow mën naa la ko wax man maanaam li ma yor du yëfi xale yëfi mag la. maanaam sëñ bi sëñ bi liñ bëgg a xam dëgg-dëgg xam nga lan la. Mm-hmm. mooy sëriñ bi course bi. Mm-hmm. ak ak ak rànn bi. Mm-hmm. ban moo gën a yéeme. yëpp yéeme ndax sëriñ xam nga lu ñu waa diaspora man de nit ba nii may wax ak yow yaa ngi nii di nee nañ ma man sëriñ bi mosuñu wax dara li jëm ci wàllu suuf si suuf si lañ ko ñoom. waaw suuf si te gisuñu ko suuf si waaw ramdi mooy suuf si gis damay seet si lii. gi damay seet si ramdi bi damay seet ci beneen façon ramdi bi. waaw damay seet ci beneen ramdi bi maanaam ñeenti seet yu bokkul. ñeenti seet yu bokkul dama ci seet. te yëpp jooni jooni yëpp jooni jooni même bopp tam bi dama ci seet. bopp tam moo ñëw tey. barke jëmmi Seydina Mohamed dama ci seet. sëñ bi gars yi bant bi lañ doon wax tey nga indi bopp tam. bopp tam bi. Uh-huh. barke Seydina Mohamed laa lay wax ci koor laa nekk. Uh-huh. say mbir nga wax ma ko rek yow tey jii. Uh-huh. ma jël bopp tan bii. ma fanaanoo ko fee sama njëganaay. barke Seydina Mohamed lépp lu nekk ci yow incha allahu rabi dinañ ma ko billaahi lazi sëriñ bi loolu yéeme na de loolu loolu doy na waar de doy na waar. ah sëriñ bi loolu moom loolu moom loolu yéeme na de nga ne nga ne bopp tan. bopp tan bii barke jëmmi Seydina Mohamed dama ciy seet. sëñ bi sëñ bi sëñ bi boobu tan bi dinañ ci dinañ ci ñëw mm-hmm. dinañ ci ñëw ndax ñu ci war a xuus bari na trop tey xam naa mm-hmm. moom mooy doon sama waxtaan ndax bi ma ko gisee damaa tiit man mm-hmm. waaye sëriñ bi tamit maanaam seet boobu ngay wax ne moom moo nekk moom moom ngay xoolee bu bokkul ak kurus te bokkul ak suuf am na ci beneen boo xam ni danaa la bii dama ciy seet bii waaw yaa ma ko doon wax damay seet ci kurus gi waaw damay seet tamit ci randi bii damay seet ci randi bële seet sax ci bopp tan bii barke jëmmi Serigne Touba damay damay damay xam loo xam ne ñëwagul billaahi lazi ak koor gi li ma wallaahi wallaahi lazim damay gis loo xam ne ñëwagul ndax Serigne euh, nga nañ ma baal tuuti mbokk internet yi du dama ko wax ndax damaa toog ak yow mhm. du yoon du ñaari nit la ma nit naan ma euh, sëñ Thierno mi loo ñu mën a dolli ci waxtaan ak moom rek mhm, ñu ko defal ndax doyul luñu bi ci lool nag ñu insisté moo tax tey nag ma taxaw ci rek bañ a dem muy wàllum seet mhm. ndax ñoom itam dañuy bëgg di xam sa secret seet ndax tamit nenañ dañuy jox seen serigne ci seen xaalis mhm. waye serigne ci 5 minutes lañ naan sa papa ak sa yaay mu tuddu wax la ñaari baat rek ne baxna manam mhm. set gi lutax ngay nangoo jël temps bobu nonu ko ci jël yow waaw parce que gis nga sénégal yi nan bàyyi naxe yéen mhm. serigne si laax nan baye nax man nee naa la seet dama lay baye ba fu nga jógee ak fi nga dal lepp lu jafé jafé bo am man na la ko wax ta dama ci jël sa temps waaw loolu la jël sa temps ci nit uh-huh. xol ay mbirum lepp bu boba bu ma ko audio wallahi bo déggé wallahi da nga fat say nok dëgg la dëgg la loolu lañu ñu wax. sëñ bi day jël day jël day jël temps. ci sét bi dama sét ci kurus damay seet ci rànd bi dama sét ci ramdi bi dama sét ci ramdi bi dama sét sax ci bop tan bi. sëriñ bi ñu ñëw ci bop tan bop tan bi manam manam bo li bo ci sét sëriñ nan nan nga nan nan nga mëna sété ci bop tan nan nga mëna sété ci bop tan sëriñ bi bop tan ñu ci sété wa loolu la samay mbóot la seen bopp la waaw man sama yëfi bopp la man waaye lii lu wér la. ah sëriñ bi wóor nga bopp tamit. lu wér wér wér wér wér wér bu ma ko seetee lu may seet ba njaganaayu fee wax li may wax bu guddee billaahi wallaahi bu bësëgee ci kàttan suñu borom ma wax la lépp lu nekk ci yow amul dem sax te te gënu. sëriñ bi à part tamit bopp tan bi lan ak lan ci lan ak lan lay yëngu. waaye gis nga bopp tan bii. Mhm. dana yëngu maanaam ci wàllum kaaraange. fépp foo xam ne nekk nga fa. Mhm. tey jii lu mu guddi guddi guddi guddi day mel ne leer. day mel ni leer. lu mu guddi guddi day mel ne leer. maanaam yow daal foo ne daal. ci jàmm ngay ne lu ci jàmm ngay nekk. foo nekk ci jàmm lay nekk. da lay aar. te gis nga bopp tan bii. Mhm. tey jii bu la joxoon lekk boo xam ne tey jii tey jii ñu ñu mbooloo bi ñu toog. Mhm. ñu jox la lekk boo xam ne tookee nga ci. barke Seydina Muhammad lekk boobu sax lay doon. maanaam lekk bi ñu def ci loo xam ne war nañu ko ci def. billaahi wallaahi sax lay doon waaye yow yow yow mi ko yor yow rek yaa koy gis mën noo teg tey ceeb nii bu mu tegoon tey ceeb nii. waaw day man mii tooke bi mën naa ko waaye yow yow ko amul doo ko gis maanaam li ci li ci li ci li ci li ci nekk ay mbóot. Mhm. dafa bëri lool lool lool lool. Mhm. ah sëriñ bi loolu day na war ba pare saa yi boo xëyee day ànd ak wér. Ah, maanaam boo ci defee wér nit li ñu koy ba noppi. boo xëyee day waaw. loolu nag lu ma ko wax sama secret. waaw loolu sa yëfu bopp. waaye daal damaa yor lu wér man man Thierno maam Thierno. man ah. damaa yor lu wér toog ci lu wér. macha allah jàngi xam-xam ba man ko. Hmm. Saalum nag laa ko jàngee. Saalum nga jàngee ko ba man ko. Hmm. allah am na solo sëriñ bi balaa ñuy génn tamit ñu nekk ba ba ba bitim réew. Hmm. ñu leen xamal ba ñu ngi nii fii seet siwaat fii sëñ Thierno. Euh, yaatal ak moom sëñ Thierno. ñu ñëw ci. Euh, lu am solo. Mm-hmm. mooy xew-xew yu am fan yi dégg nañ ci lu mel ni. Mm-hmm. coow li am Pikine barki démb. ñuy wax ci diggante force de l'ordre ak population bi. sëriñ bi loolu ndax dégg dégg naa ci sa benn mbokk sëriñ. Mm-hmm. nee na xeetu yëngu-yëngu yooyu bu amee rek sacrifice moo am Sénégal loolu sëriñ bi loolu ci mën wax. waaw dëgg la xam nga ba mu ci njëkkee ñëw. waaw dama la waxoon ne la naaw yi nañ dem uti kaaraange. waaw waxoon nga ma ko. ne la saa yi boo xëyee bu ñu xëyee. Mm. nañ fexe ut saabu yi waaye at nak nag dana tàng jër. maanaam. dana tàng jër maanaam. élection yi kii nii. maanaam dana tàng jër. ci at ci at ci at bii dana tàng jër. na ndaw yëpp li may dénk bu bees bii nañ fexee dem ut kaaraange man nag du ma waxantu. ci naka lay tàngee. ci naka lay

fexee saraxe saabu liibar génn wallaahi da nga dem ak jàmm da nga dellu seen jàmm. Hmm. waaw. macha allah loolu loolu loolu loolu am na solo sëriñ bi kon na ko sénégalais yi déggee noonu hmm. surtout ndaw ñi tamit hmm. ñu déggee ko noonu waaye ba tey ñu jumaat ci réew mi maanaam ban yëngu-yëngu nga gis ni maanaam moo war a yëngal réew mi ci côté politique ci côté sport lan moo war a yëngal réew mi bu yë bu réew mi di yëngu waaw yëngal problème Adji Sarr day dekkiwaat. waaw dina waaw dana uh-huh. hmm? sëñ bi loolu yéeme na de. dana dekkiwaat te coow dana ci am man maa la wax tey jii. coowal Adji Sarr. te képp koo xam ne dugaloon nga ko ci tooxi doona da nga wax ba ci hmm? waaw. sëñ bi ñu wax ni gars yi koo xam ne tey muy tey muy suba nag laa la wax de dana dekkiwaat. yow coow loo xamante ne li fi li mu yàq ci réew mi ñi ci jot a ñàkk seen bakkan sëriñ bi nga ni day dana dekkiwaat man maa la wax lii bindal denc parce que bu dul waa opposition hmm. dafa am ñoo xam dañoo nekk ci ginnaaw opposition dañoo bëgg mbir mi leer dañoo nekk ci ginnaaw opposition dañoo bëgg mbir leer naññi ñoo xam dëgg gi fan la féete hmm. mhm. bi loolu loolu loolu na de te képp koo xam ne bokkoon nga ci nguuru Macky Sall gi ci kàttanu suñu borom da nga weeru ba mel na géej manam ku nekkon ci nguru Macky Sall ta su loxo lalé won da nga ko ci gundal kam. ah. waaw képp ko fàttali aji sar tamit dañ ci xam dañ dégg ci fan yi lu leer nañ sëñ bi yaa ngi may tiital de. man maa la wax li yaa ngi may tiital de. la wax li rek bindal denc li ma la wax ni ah. waaw bindal denc li ma la wax. sha allah amna solo. Mhm. ba tey ñu ñëw ci euh, ci ci actualité gouvernement bu bees. Mhm. di waja am. Macky Sall war a joxe lenge yi. Mhm. ni ki gannaaw suba incha allah muy le deux. waaw euh, gouvernement bi ñu jëm. Mhm. yaa tax woon. sëriñ bi ma ne nguur nguur nguur gu bees quoi. Mhm. war a war a war a jox ci lenge yi suba. le premier bi lan nga ñu mën a wax ci nguur gi nga yow yaa waxoon ne dañuy falu premier tour la ñuy falu loolu ñu mën a wax ci moom. waaw dama ne nguur gi bees bi waaj a dem. waaw suba nag coow xam naa dina am ay ay coow coow. ay coow yu sew. ay coow yu sew dina lu rëy. ay coow yu sew dina am. digënté digënté opposition pouvoir. ah. lu waral loolu ci passation de service kasse wa lu waral loolu mooy wa wa wa wa pouvoir lu beuri tay ji wa nguru Pastef bi dina nangu sen sen seen walum sen walum ki euh eh, ay terrain yi mel non te seen waa kër. Hmm. man gis naa loolu man loolu indi li. bu dina fi am diggante opposition ak pouvoir ko ci mel neen far bongo mi bi bo ñu fagaru de ñu waaj ñu waaj nan waaj han aw képp ku ci yoron ay suuf ak lu mën di doon wala auto bi bo ñu waajé lepp lañu ñuy waat maa la wax li sëriñ bi loo gis na wala loo dégg lo yëg dama gis man képp ku ci xam ne yoroon nga ci lo xam ne dafa tak ci walu alalu askan bi bi bo nga fogg loolu yéeme na de. waaw ah, maa la wax lii. dinañ ci ñëwaat sëriñ bi euh, ñu xuus tuuti ci sa liggéey balaa waxtu bi ñu di ñu di ñu dal. Mhm. ñu ñëw itam fekk fi ay mbànd. Mhm. ay sunguf mhm. ay xeetu ren. mu ànd ak mbind mu bari. sëriñ la lan ci lan lay yëngu. waaw tey jii lu ci mel na tey mbànd mii. mbànd mi tey day yëngu ci wàllam koo xam ne da koo liggéey yàq ko ba mënul am dara. ku ñu liggéey ba yàq ko ba mënul xëy sax mënul am dara yaramam di diis xelam di jaxasoo mu tëdd ci lal mënut a bu la ci defaree sangat bu ñu ciy ba pare uh-huh. nga si sele ba yoon nga ba yoon ba yoon nga lu la dana la bàyyi hmm. da nga beesaat tàq mi da ngay doog a juddaat maanaam ci wàllum ci wàllum kaaraange ku ñu ku ñu liggéeyoon toj toj liggéey uh-huh. liggéey ci lay ci lay yëngu gis nga bu fekkee na wàllum tey jii bi kii nii ma gis. waaw xob yi xob yi. moom la ñuy wax manquenance. manquenance. manquenance. yéen maa ngi koy door koy wax. Mhm. xob yi tey jii boo koy uti da ngay dem ba àllub saalum bi nga ut ko boo koy ut da ngay jënd da ut ginaar. Ah, saalum lu am saalum waaw manquenance. waaye képp ko xam ne rab da ko jàpp muy junne muy dëmm lu mun di doon. Mhm. boo ko ko suuroo mu wax. nga ni da ngay wut ginaar. ginaar nga koy jëndee man boo koy jëndee. maanaam ginaar gi dang koy rendi fi ci garab ginaar gi ngay ngay rendi nga timilu ko manam ci xobi ci xobi ci xobi do ko dag nga do ko dag lolu moom bàyyi mu may ko sama mbokk kat yi mais way way duñ gis duñ gis rendi gi duñ gis reen gi ginaar gu xonk curr nga ray ko nga timilu ko deret ji ci biir ci ci wis ko ci ci ci ki xobi nga wis ko ci xobi yi nga do rocc ci xobi yi hmm. tay tey ji nga wer ko ba mo amna nak saata buñ koy bolel hmm. nga dëbb ko ba mokk hmm. kep ku ci trap japp boko ko suro suuroo mu wax Hmm? lépp lépp lépp lu ko jàppoon dina ko bàyyi ci kàttan suñu borom xob yi ñoo ngi koy wax mancanance. mancanance mancanance la tudd. kon boobu moom xam naa ni Mansour la na cee am. mancanance. mancanance mancanance. seen bi reen yi nag. Euh, sunguf si. waaw sunguf bee moom la ñuy wax timin timin. timin timin timin timin waaw. sëñ bi yi nga wax nii rek gaa ngi koy doon dégg. waaw timin timin day day day day day dox ci wàllum ibbeekaay. ci ubbeeku ibbeeku. te timin timin nga sangoo ko noonu rek tey jii nga boole koog laaye ay alam nasara wala isa jaa wala sooyna waaw wala wala wala waqean ah. yooyu tamit day day dox ci wàllum ibbeeku nga boole koog moom yàlla da lay yëkkati rek nga boole koog ay parfum ay xeeti parfum yi naan maaw lordu mm-hmm. ak Nour Mohamed ak miski yooyu day day day maanaam day say mbir daan day gën a jug day gën a yëkkati ko macha allah am na benn bind mu bind bi moo nekk nii moom la ma koy booleel waaye képp koo xam ne tey defal nañ ko mm-hmm. incha allahu rabbi yàlla dana ko yëkkati baax baax ci wàllum am-am ci wàllum ibbeekaay. macha allah bi am na solo waxtu baa ngi waaye dafa am tuuti rek lu ñu mbokk li ma la wax. ne la yow man diaspora bi laa fi nekkal. Mhm. waa bitim réew bi laa fi nekkal. dafa am as tuut yoo xam ni. Mhm. bëgg nañ nga nga nga leen ci. Mhm. ndax nee nañu. heure bu ñu yónnee seen alal. incha allah dañ koy jotee waxtu bañ ko bëggee. ci yow waaye tamit nga. boo mu ne euh, soññ sa mbokk sëriñ si tamit ñu dimbali leen. ndax ñu si bari dañuy joxe seen alal. Mhm. waaye pour ñu jot si. dëgg la du yomb lan ngay wax ci lu mel noonu. waaw waaw waaw waaw waaw tey suma mbokk sëriñ si tamit. Mhm. képp koo xam tamit maa ngi lay laaj mhm. bàyyi nit ñi ni nax. di xusi xusi jox leen rek. nit ki bu fekkee na da jox xaalisam boobu. bu fekkoon ne cent franc rek wala muy dërëm. xas ngeen a waxante ngir yàlla wax lu ci àq. ayca sëriñ bi nga ni nga ni nga ni nga ni nga ni ñoom euh, ñaan ñaan ñaan ñaan à distance. Mm-hmm. maanaam faj à distance mën na nekk. am ah, mun naa nekk waaw. mën naa nekk bu fekkee ne lan lay la nga nekk. jubal nga ci dëggal ci kay mën naa nekk te bañ ay tàppale mën naa nekk. ci naka lay nekkee. ci naka lay nekkee te nit ki bu fekkee ne problème bu mën am tey mu nekk bitim réew fu mu di nekk man de man Thierno bu ma woowee wax ma ko. ci kàttanu suñu borom lépp boo fekkee ne entreprise la boo xam ne sax da fay bëgg a dàq hmm. wala mu joteeg jabaram wala lu mu mën di doon daal bu ko amee bu ma ko waxee ci kàttanu yàlla bu ma toogee fii mën naa koo ñaanal à distance à distance hmm? waaw allah mën naa koo ñaanal à distance sans mooy may bind dara di ko jox hmm. waaw loolu am na solo sëriñ bi kon ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi la nga tàggoo ñu dem ba beneen yoon incha allah. waaw di ndax gars moom duñ doon sant. waaw di <laughs> sant ñëpp di la gërëm ñëpp daal di uh-huh. sant mboolem maanaam entier. Uh-huh. di gërëm waa Sénégal di ñaanal Sénégal yàlla na fi eh, jàmm sax. amiin amiin di jaay si naam di la sant yow tamit di la gërëm di gërëm sa gars yi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ bi.